ñun liggéeykatu tuwaay foor yi ñu ngi wax ak askanu Sénégal ak àdduna yëpp ñuy seetaan di leen xamal ne bés bi ñu nekk tey la ñu jagleel bépp liggéeykat ba xamante ne yaa ngi daan sa doole ci àdduna mu waroon ñoo fekk tey ñu nag suñuy employé ñuy saafantoo ci lu rafet mais amaana xol gu tiis ak nakar gu fees moo tax ñu taxaw fii di wax ak yéen te am nañ yaakaar ni suñu kilifa di président jël na ci ay matuwaay te dana dana ko doxal ba mu mat sëkk mais du tee naqar bi ñu am mu nekk ñu am nañu ay frère ya nga xamante ne tey caabi féete na leen gannaaw ci la nga xamante ne ñun ñëpp xam nañ seen ak ak yelef lañ doon jooytu ci ñi nga xamante ne ci ñoom lañ leen waroon jooytu ak suñu ñoo xamante ñoo nekkoon suñu njiit yi tey ñu amoon seen confiance te ba léegi confiance boobu moo fi nekk tey ñu dàq ne la nga xamante ni ci lu dul dëgg ci lu dul yoon tey fi ñuy wax ak yéen nii tey ñin ñi nga xamante ne ñoo ñi xamante ne ñoo nekk en rotation taxawoon nañ tey pour bàyyi liggéey gi mais yàlla ak ñi nga xamante ne suñu délégué yoo xam ne ne coloré bi nekk suñu diggante ba léegi ñu ngi koy rafetal xalal nañ ni ne loolu bu len ko def continuer len sen liguey mais teewul na ngeen wax li nek ci yeen moy nakar ak tis ba nga xamantene suñu frère yoo xamantene ne caabi na len ginnaw tay ñu waron bok ci ñun te xam nañu fofu du sen place ñu ngi jot ay appel yoo xamantene ne nañ sen famille duñu xam sax luñu len di wax ndax nakar gi nek ci ñun ci loolu nak ñi nga xamantene ñoy wa toy for tay taxaw nañu pour neexalee ñu ay suukaru koor ak yu kenn xamul taxaw nañu temm pour bañ loolu parce que suñu xol seddul su nit lépp looy def rek nañ ci ànd ak la nga xamante ne xol gu sedd taxaw nañu temm bañ nañu loolu parce que doo ñu dóor ba pare naan na nga noppi te mooy luñ ñu def téye ñu jàppee ñu comme esclave ba pare ne toppaat suñu ginnaaw du ñu neexale la nga xamante ne du dëgg ci ñoom moo tax du duñu ànd ci loolu moo taxoon tey jii ñu taxaw jàkkaarloog yéen ñi nga xamante ne yéenay taskatu xibaar yi pour wax leen suñu tiis di ko répéter encore une fois suñu frères yi nga xamante ne caabi féete na nañu ginnaaw nekk nombre ba nga xamante ne vingt cinq personnes yi nga xamante ne fi may wax ak yéen nii caabi féete na leen ginnaaw ñun nag ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne ñii yëf yi xamante ne muy seen loxo ñu taxaw ci taxawaay bu mët sëkk jël seen responsabilité bu mët sëkk parce que ñun parewuñu sax pour bàyyi xalaatuñu ko ay ndaw lañu amaguñu fuñu tologuñu fuñu amé bay ñaax ñu ngi xamal état bi ne di xamal képp responsable boo xamante li war nga ci yëkëti sa baat ñu ngi lay ñaan nga def sa intervention def ci sa cër bu mu mat sëkk.